Masalam sir, my good evening po. This is Captain Amiyam Sister Connection TV Senegal. Come on, all of the developers, all the Senegal Network Connection. On the very stand, on the very stand by, very much of the time. Mo, mi awal niya, mi awal niya. Mo tayo ki ben side ko kami. Tough connection organization ako. Mo side ko tayo. Mo na sa partner, sa pa comme au niveau de Mekende organisé bi dara sans pour autant nga ñu am bi bon comme ni nga on a l'habitude ci mouvement bi sponsor yi ñu bëri mais on s'est débrouillé trouver partenaire mais boo xoolee partenaire ma def partenaire ñëpp c'est des bokkal donc am na ñi nga xam ne gëm nañ hip hop am na ñi nga xam ne mooy loolu mais li may conseillé lu bëri mooy dañuy investir si bopp dañuy investir si bopp parce que bon comme ni ñu ko waxee bien que investissement long terme la investissement long terme la maanaam foog nga ne boo ñëwul moom boo doo ci bopp parce long terme la parce que yow yaa ngi ne comme ni ñu ko waxee saa su nekk ak seen développe ba lu bëri fekk la bon organiser nañ benn o supposons de sélectionner artiste mais danoo waaj waaj waaj ba sonn donc on s'est dit que nañ organiser au moins gars gars yi xamante ni bon lii du caaxaan c' est des jeunes te ku moo tax tamit ñu fenn ah ñu commencé fii au niveau Kayoor mu naan Kayoor gars yi bon mënoon na gën a yaatu mais il fallait que ñu teg dara rek dooy dooy caaxaan lolo tanya tak ke kemesa tegor maupun beri disana lebih tu dapat pom dapat button pada non dua seri ke nak buat dapat sosio apa dia fikir sana ke atas mana kita yang tak kuat bon apa non ini dia video bon on apa dia dah dapat video bon donc apa dia fikir kita video apa dia bon insyaallah dengan musik akan video on va bah, après après conclusion changer. bon euh, dimanche dimanche euh, bii euh, bon un def hein. mais comme nous dans les normes dans les normes hip hop comme skills flow lyrics bon soit avec loolee bon day day nekk benn vote pour l'heure parce que comme man ak ñoom ñoo dëkk bon man du ma bokk si vote bi donc euh, ñi nga xam ne ñu ngi ci partenaire euh, partenaire euh, ci commentaire commentaire parce que commentaire yi comme ni ñu koy waxoon tamit commentaire yi vote foofu lay nekk mais nag bu dee clé ci gars yi yaakaar dañoo parce que kenn nit mën na voté ñaari wala ñetti yoon donc dañ koy yóbbu si noonu bi yëpp waaw donc comme ni ko waxee faruñu fenn juste dañ bëgg a euh, rapport Ngaye Mekhe jëm kanam comme les autres le font à Dakar donc comme ni ko waxee saa yoo xam au niveau Kayor mais comme fii la ñu doon tàmbali fii lañ koy commencé après yàlla ko def incha allah après Dakar bon ñeneen ñeneen yàlla tamit après nga kuréel ok noonu lay euh, demee juste pour gars yi comprendre c'est juste pour nous euh, la promotion des arts au niveau des Kayor nous sommes le maire et euh, projet juste pour que euh, je atteigne au niveau de Mekhe nous avons au moins son en plus nous avons de telle sorte que tu gagné des en plus mas mu ngi dañu am benn indi garçon après ñu ñoo compagnie ko benn benn kii benn benn bureau mo comme que comme ñu waxee que le meilleur gagnant ok que financial ma ngi ñu jox rendez vous ba benn yoon en serait la cinq minutes de financial